salaamaaleykum suñu mbokk internetu Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois saa bu actualité bi tollee fii je pense ni dañ ciy dalal ñi nga xamante ni naam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy euh, bitim réew je ni ku dalal nag kenn dootu ko présenté fii ci rawatina fi nga xamante ni moom mooy euh, di Feeling Dakar TV je pense que ni euh, soxla ngeen ko aussi doon bëgg ñu waxtaan ak moom ci yenn actualité yi nga xamante ne nii mi ngi dox ci réew mi te pense que boobu ba tey mi ngi ciy wax bu baax a baax moom moo tax tey rek. ma def le tout ah peut temps xat na tuuti rek mais moom may nañ ci ba ñu may ñu ah, ñu mën a waxtaan ak moom ah, balaa boobu dama koy jox mu nuyoo ko mbokk internet Feeling Dakar TV ñu seetaan après ñu ko ak moom ci waxtaan bi ah, Cheikh Ahmed Cissé maa lay nuyu di la ziar bu baax a baax. maa ngi nuyu waa Feeling Dakar commencé ko ci njiit li mhm. ñi nga xam ne ñoo fay liggéey. Mhm. ñi koy seetaan ak déglu ci àdduna wërngal këpp. Mhm. di ñaan jàmm yërmande ak barke ci ñoom ñëpp. allahumma di am kontante. Mm-hmm. seqaat ak yow waxtaan. Mm-hmm. wax naa la ne jamono bi nga xam ne. Mm-hmm. dañuy ubbi antenne Feeling Dakar di saaga suma waay jur yi. ma di ko seetaan mu leer ma ne euh, groupe de presse warta demee nii. warta doon arme pour kenn di ko jël di ko dóoree keneen yow bokkuloo ci. tout à mm-hmm. moo tax yow soo ma woowee. Mm-hmm. lu ma xat-xat dama la koy nangul nekkuma suma état dama tukki. dëgg la. waaye lu ma jàpp-jàpp dama la koy may ndax doomu adama bu mu mën a doon. Mm-hmm. fi nga ko teg rek la lay teg bu dee borom gor la wala nit la. ndeysaan sama waay nga. waaw loolu moo tax yow boo ma soxlaa damay ñëw. te ñu bàyyi xel ne. ku ne mën ngaa am sa géer wala sa xarit ku ne sañ ngaa am ku la neex. dëgg la. waaye ku ñëw ñu teg la. Feeling Dakar nga doon chroniqueur wala liggéeykat wala amoo fa salaire. Mhm. war nga mën a xam ne Feeling Dakar nga doon yow ba soo wàccee antenne bi yaa moom sa bopp. tout à fait loolu am na solo. Mhm. ñaar ñu am problème. Mhm. seen problème la du sa problème. ku am ak problème seen problème la du problème mu Feeling Dakar. d'accord ñu bañ koo utiliser def ko arme. di ci neexal nit di ci leb la ak fay bor loolu lu dangereux la ndax day wàññi crédibilité. crédibilité organe bi crédibilité lu bëree bëree bëri bëri te loolu dara jaru jërëjëf Cheikh bi euh, d'accord ci nuyoo bi nee naa la man mbégte la à chaque fois may dalal ak yow di waxtaan ak yow merci aussi tamit ci reconnaissance bi nga xamante ne am nga ko ah sama diggante ak yow moom moo tax comme li nga wax euh, fi nga nekk ba Amérique sori na mais boo ma mayee sa temps tuuti rek loolu dama la ciy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di doo di la wax ni rek dañuy def lu dugg ci waxtaan bi Cheikh Ahmed Cissé nag waxtaan bi moom euh, fu ñu koy dooree je pense que ni ci kaaw Doro Gueye parce que gis nañ avant ñu koy arrêté je yàgg nga toog di wax kon tey loolu bu ñëwee day baax ñu am ak yow jotaay waxtaan ci ak yow mais Cheikh Ahmed arrestation Doro Gueye Euh, ban jàngat nga ci am ak euh, ñi nga xamante ne nii bokk am na ñu ne euh, Doro Gueye dafa wéet ci li nga xamante ni moom mooy depuis bi ñu ko arrêté ban jàngat nga am ci loolu Cheikh Ahmed Cissé. jàngat bi ma ci am. Mm-hmm. mooy dëgg la wéet na. Mm-hmm. ndaxte nit buñ la jàppee. Mm-hmm. ci culture Sénégal li ñu xamoon. kuñ jàpp sa jëkkër nga jaay sa xar say nag sa bëy wala sa or. wallaay ndeysaan. Mhm. waaye jàppee Dora kalaara defut loolu. Mhm. waaxu na ba ci kaso ga fekk fa Dora Gueye di ko xas. dëgg la. nga ne dëgg la da nga xam dara. dégguma la allo. ma wax ba pare nga ne dëgg la danga nga xam dara. ne dama laa dégg yow laa déglu bu baax. nga ni Clara dafa dem ba. Clara dafa waaxu ba ci kaso gi fekk fa Dora di ko xas loolu laa la wax. ah waaw ci kuñ jàpp sa jëkkër mu nekk ci fitna. Mm-hmm. moralement yaa ko war a soutenir. Mm-hmm. psychologiquement yaa ko war a soutenir. Mm-hmm. ak lu mën a xew ba problème bi jàll. dëgg la. waaye kilifa sa jëkkër ñu jàpp ko kaso ngeen sekki doom mu nekk ci biir kaso nga koy xas. ak a naqaral. na sénégalais seen ndax jëf ji rafet na. jëf bu rafetul rek nettali du rafet. d' accord kon loolu am na si xanaa euh, lu bees la parce que ñun euh, li ñu jot a dégg ci coow ba am foofu mooy ni ko senegal yi doon waxee rek euh, Clara la ak ki nga xamante ni moom mooy rek ay dara. loolu ci gendarmerie bi la. d' accord bañ ko defee garde à vue man ci prison bi laa la wax. ah waxuma kenn Mhm. ma jotee jigéen dama ne Clara ci boppam moo fekk Doro ci biir kaso di ko xas lii laa la wax ma information kenn du ko weddi d'accord mhm. lii mu ngi xew quatre jours ci ginnaaw d'accord mais loolu nag nga ko jàngate kon est-ce que tamit li nga ko waxee comme soxnaam moo dem ba euh, fi fi mu nekk di ko xas kon est-ce que tey mën nañoo wax ka ni Doro Gaye dépp bi ñu ko arrêté amul ñu ko xamante ñoom ñoo ko soutenir wala ñu ko jàppale est-ce que tamit njëkkewul ci soxnaam soosu. dama la wax ne dafa wéet ma lay indi lu wéetaay bi na la ki ko gën a jege ci àddina muy soxnaam nii la doxale d'accord. am nit yoo xam ne tey li ñu ameel doro buñ ko ko fayoon situation bi du demee nii am ñoo xam ne tey ñu ngi ciy xamu taal pour mu gën a dugg. Mhm. jafe-jafe ak fitna yii yëpp mu koy jànkuwanteel ñi ko koy teg lebalut leen ko. dëgg la. man gëmuma ne dooro dafa jub. Mhm. gëmuma loolu. gëmuma ne moo fi gën dama gëm ne benn sénégalais la bu doon liggéey mhm. di def ay erreur am di def ay mbaaxam di góorlu ci nit ñi li mu mën d'accord erreur yi mu def nag war na subir conséquence bi ndax mhm. ku ne responsable nga mhm. ci la ngay def ak la ngay wax waaye nag dossier dooro bi dafa am injustice bu rëy bu ci nekk dafa am injustice bu mag ci naka benn bi ci njëkk mooy waruñ ko woon a jàpp procureur waru ko woon a jàpp amul ci moom benn soxla. Doro Gaye waruñu ko jàpp. moroom citoyen mu am ak moom problème ñu porté ko lan moo tax nga ne waruñu ko jàpp Ahmed. <laughs> xam nga man su ma wax yëpp day ci xam-xam xam ne lii dëgg la. Mm-hmm. bi ma waxee danga ma laaj lu ma neex mooy lan moo tax waruñu koo jàpp. Mm-hmm. li tax waruñu koo jàpp mooy Doro amul problème. Mm-hmm. ñaari société ñoo am problème. Mhm. tribunal de commerce la war a dem. du Doro Gaye en personne amul benn sec bu ñuy mën a indi ci àddina fekk fa turi Doro amul. Mhm. te ki ko porte plainte nan ngay jëlee xaalis bu yem ni un milliard deux cent millions. waaye war koo jënd ay parcelles ci société ak société. Mhm. jaarale loo ko ci notaire pour état am ci alalam kon yow sàcc nga état. ba pare bu door a jubadee yow it da nga jubadi ndax yéen yaan ñëpp ci looxoor ngeen nekkoon doo du ñaari sàcc nag du ma tëj kenn bàyyi kenn. d'accord kon affaire yi noonu la demee. li ma la wax nii la demee amul benn sec ci àddina maa ngi défier ñëpp. Mhm. mun a indi fuñ bind Pape Doro Gueye segu un milliard deux cent millions amul ñaari société la. kon looloo tax nga ni sànq ci injustice lañ ko teg. tribunal de commerce moo koy réglé looloo waral tribunal de commerce. Mhm. waaye ban banque ci àddina moo lay jox xaalis ci jaayum kër te kay teew dëgg la munul nekk li ci laxasu dafa bari mhm. waaye nag kuñ soxla woon la rek ay mbokkam war ko ay xaritam war ko ñu jàpp ko jaay ko doole mhm. encore une fois neewuma dafa jub mhm. jëluma défense am du suma xarit du suma kilifa dama libre di wax li ma neex di ko teg ci xam-xam te ku ko dégg xam na dëgg la d'accord Euh, mais mais mais ni ngay waxee est ce est ce tamit. moom société boobu dafa war a dem ci kaso gi fekki door. d' accord mais Cheikh bi ni ngay waxee tamit est ce que ñenn sénégalais duñu yaakaar que ni euh, da nga koy jàppal tànk. si. waaye buñ ko yaakaar loolooy dëgg dama koy jàppal tànk si injustice bi bëgg mu subir conséquence moom it lu juba di lim def. d' accord kon la nga jàpp que ni ci laa tax yow xam nga man suuf lu ci leex neex mooy. Mhm. du ma fi nekk naan non nangam ni nii wis wis c' est à dire non. dama mhm. koy jàppal tànk bi ma toppee dossier bi gis ne émotionnellement mbokkam yeeg xaritam yeeg ñi ko doon tagg ñu ngi koy wor mhm. di ko seetaan te du dooro la njëkk a dal ñaata dooro la ci ginnaaw loolu faaw ñu xeex ko ndax Abdou mhm. ku am toog say mbokk joxoole ñu ne da nga bon ku am joxe boo ñàkkee ñu seetaan la mais kon bon a baax wala baax a baax waaye lan la ko quoi man lii mooma naqari Mm-hmm. muy benn ñaareel ba mm-hmm. dossier bi li ma la wax nii xamoo luwaa waaye xam nga ne yenu na maanaa société ñaari société am problème ñu jàpp benn borom société bi bàyyi kële te mm-hmm. kii bi muy jënd kër gi jaarul ci notaire dëgg la su jaaroon ci notaire état da ciy am dix pour cent bépp transfert fond euh, euh, euh, kër wala palace wala suuf état da ciy am kii xañ na ko état kon suñ njaay mi demoon état du lekk d'accord mais am d'accord mais Ahmed Cissé ñu bëri dañuy laajte tamit des fois yow boo waxee ñu bari dañ naan dëgg la naam moom mun na wax lu nekk mais dëgg da koy wax suuf yi ngay am fan la ñuy ji fan la sénégalais yi tamit ñu ngi xalaat fan nga ko war a mun a jële ba dangay oser taxaw di ko wax aussi. mu ngi mel ni tey rek ñu bëri soxla nañu mënuñ maa jot mais bi ma tukkee ba jàpp am nga ma interview. parce que dafa am lu ñu sekk. mooy da nga am sa micro jaarale ko ci dëgg ak yoon tàllal ma ma wax nga dem teg. dëgg la ma fonk la respecté la nga jàpp moo tax nga am accès ci ma. man hmm. man maay Ndakaaru. <laughs> sëriñ laa damay seet. waaw caga laa <laughs> nandite laa businessman laa damay jaay garabu dëgëral fu ne laay dugg lu ne laa xam waaw dama doon nandite nag loo ma wax kenn du xam ne yaa yam ko dëgg la maanaam sénégalais boo amee réseau am sutura rek lu ne mën nga koo xam ci réew mi mm-hmm. c'est ça quoi nii la demee d'accord Ahmed Cissé Lo rek dañ ko seetaan je pense que ni am na sax ah, ñi nga xamante ni ñu leen ci tudd je pense que ni ñu ngi naan ay ay Wally Seck ak képp rek nga xamante ni Doro géey daan loo taxaw ci seen ah, di ah, nga ko daan way depuis bu mu amee li génn ñu ci dégg ñu ci benn yoon nga nit génn ci def ci sorti wala boog dañoo yaakaar ni bis bu ñu génnee wax ci wala ñu wax ci lu jëmee noonu ñu woo leen bañ jàngat nga am ci seetaan bi nga xamante ni artistes yi ah, ku nekk rek daan nga way Doro Gueye tey mu nekk ci jafe-jafe yi dégguñu leen fenn. xam nga man. Mm-hmm. dama xam ni may waxee ci ñu am tur Wally Seck bi ñu jàppee Dora indi na xaalis bu bari xam naa somme bi. Hmm. waaye soo ko waxee tey. Hmm. valeur wax ju du am den na dañuy titre Wally a donné tant de million à Dora Gueye. kon Wally jël na xaalis bu takku pour jàppale ko Dora Gueye. su boobaa dafay yàq li ma bëgg a wax waaye dama ne Wally sekk yëkkati na xaalis bi ñu jàppee Dora. Mm-hmm. ñaari tranche la ko def mm-hmm. bii mu indi lii bii mu indi la lee moom xam na man xam naa dooro xam na mm-hmm. kon moom seetaanul dooro Momo Dieng mooy ku tekkiwul dara nañ ci nu mel waali la nu mel dooro gay la dooroo ko jàppale dimbale ko taxawul ko waxu ko demu fay seetiwu ko defalu ko benn teraanga jaamaan mu ngi topp ci doorogee di sonn suba ngoon guddeeg bëccëg lu mu am ak lu mu mën ak lu mu xam mu nga ci dafa am ñu gore am ñu gore di moom moo jëng ci ñu gore di la bokk. ni mu mhm. toroxalee jabaram ji sànni ko noonu la def Doro Gueye waaye àdduna ci kanam. d' accord moom yéen nañ ci ñëw mais kon mën nañoo jàpp kër yi di gars yi naan dégguñ ci kenn kon Wally am na lu mu def naam ci suuf. man maa wax ak yow man maa leen ne ñaari yoon la Wally yóbbu xaalis ñaari trace la ko def bu ne xam naa ñaata la. d' accord. seetaanu ko de. Mhm. d' accord Cheikh bi je pense que ni loolu am na solo bu baax a baax euh, ci euh, waxtaan bi nga xamante ni waxtaan nañ ko euh, ci Doro Gueye mais dañoo gis tamit Kaliphone barki dem jël naa ko mais ay kiyam yu bari dana ci attaqué di la ci wax li nga xamante ne nii mun naa ni kenn mënu ko dégg yow aussi ban njaayin da ci am Kaliphone Sall à chaque fois di la attaqué rawatina ci ci kaaw ki nga xamante ni moom mooy Doro Gueye. ah non amu ci problème Kaliphone la. Ah. moo saaga woon Macky Sall moo ko taggaat moo saaga woon moo ko taggaat donc ça va hmm. la bu doon keneen ma bi ma wax ci waaye comme la rek c'est bon moom attaqué bi mu lay attaqué nag hmm? moom attaqué mu lay attaqué à chaque fois moom laa la wax de xaaral ma répété tontu bi dama ne bu doon keneen mu am problème waaye comme kali la sebo moom noonu lay bëggee hmm. moom day saaga sa ndey ba pare taggaat la moom noonu la mel xam nga jaam jikko la ak juddu boo ci juddoo am jikko bi nag dafa am nooy mel Mm-hmm. papa moo ko tooñ quoi moom mi ko tànnal yaay bu mel ni bu mu am mais man awma ci benn problème c'est mon de longue date. Mm-hmm. d'accord. <laughs> c'est mon ami de très longue date. d'accord mais euh, li nga xamante ni keroog def na ko ay révélation euh, ndax dene euh, yow yaa ne ko dafa am jigéen bu mu poñeek bu mu ëmmal ak yooyu yëpp je pense ni dikkaat na ci nee loolu du dëgg ban jàngat nga ci am. non kale la encore une fois papa moo ko tooñ rek moom mi ko tànnal yaayam. waaw mais seex bi lan moo tax duñu waxtaan ci li nga xamante ne jot na la ko wax. billaay aw ma ci problème dama ci amul problème moo tax maanaam aw ma ci wax aw ma ci problème aw ma ci tontu kale la. bu doon hmm. keneen ma tontu mais c'est Kaliphone. mais ni nga tontu ne est-ce que moom ni moom moo ci dëgg. waaw kali lu mu wax dëgg la nu mu wax rek looloo loolu la amee <laughs> kali la buñ ci tardel suñu bopp. <laughs> Ah. <laughs> non seex ba xam nga war xam la mais dama gis. Kaliphone du bu taxawee. Euh, di ci wax euh, moom moom mu am yaakaar ka ni li muy wax moom moo nekk dëgg kon tamit boo am na siise bi moo xam bu ci waxee nii dégg euh, mun nañoo njort que ni li muy wax noonu est-ce que nekkul moom moo nekk ci dëgg parce que dafa génn wax mhm, c'est mhm. dem ba na génn kaamil waat dëgg kale la ko bu doon keneen ma wax ci mais c'est kali lan moo tax munoo wax kon mu nekk sekkali <laughs> parce que daf may tardel ok xam nga moom cuune bi mu cuune mag bi kali mag na ma quatre ans. Mhm. ma indi ko ci live ñëpp di seetaan mu nangu ne bàyyi na jabaram bu nekk France Sénégal tëddee beneen jigéen ñu naan ñu naan ko kali njaalo. Mhm. maanaam cuune goog mu cuune moo lay wan ne kii du ma moroomam dama ko dóor. Mhm. léegi nag duma fi nekkaat di dem ñëw am njaay indi jóob lu mu wax dëgg la lu mu bëgg a wax dëgg la nu mu koy waxee noonu la demee et après. ah c'est calme. ah en moom mu ngi seetal deram je pense que dégg nga lu muy wax Ahmed Cissé lu muy wax loolu dara amu ci. dem ba naan. waaw ah, ci génne kaamil wax. ah yow am na yoo xam ne mënatut a set saabu day seetal waaye am na lu mënul dara. kali hmm. <laughs> kali taggam dara mënatu ko seetal na góor góor góorgóorlu te muñ rek fexe dund ak moom maanaam gën a ko xam ba pare mën a wax yombul. Hmm. ko naqari maag ko teg na muñ rek. <laughs> d'accord Ahmed je pense que di loolu am na solo bu baax ba baax ci leeral yi nga xamante ne nii man nee sama émission ak yow à chaque fois. day baax parce que dañuy waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité waxtaan li nga xamante ni moom mooy euh, nekk ci réew mi sànq daa am koo tudd mu nekk artiste bu mag di Momo Dieng je pense que ni divorce am ñu ngi ko doon dégg euh, gis nañ aussi nga am ñu ngi ci xamante ni noonu nga ci génn def ci ay leeral euh, tey ci divorce Momo Dieng lan ngañ ci mën a dikkalaatal parce que gis nañ nga teg ay audio yoo xamante ni ay séeram yi nga xamante ne ni doon nañu wax ki nga xamante ni moo nekk jabar bu woon bu Momo Dieng yan leen nga ñu mën a ànd dëkkalaatal ci loolu Ahmed Cissé. yegsi na Dakar sax dafa demoon Turquie jógee fa ñëw jógee Amérique Turquie léegi yegsi na Dakar sànq ci ginnaaw moom Diena. ah Diena mi ngi Dakar d'accord. waaw je Diena ba jaxate mhm. bu yéen da ngeen di mhm. ah, na waaye de. am na talent mun na waaye de seex bi. waaw moom laay leeral nii dama ne. waaw yow yaa ne artiste bu mag ma ne la bul jaawale artiste bu mag ak talent. du artiste bu mag mu ma jee. waaye du artiste déedéet. ah bon waaye nag am na talent ku ko bëgg ku ko bañ am na talent mais du artiste bu mag ci réew mi bu ñuy compter artiste bu mag yi du bokk. mais Ahmed Cissé Pape Diouf sa waay artiste bu mag la. dëgg la. Wally Seck artiste bu mag la. dëgg la. Siri Diop artiste bu mag la. dëgg la mais ñooñu buñ ñu demee Momo Dieng nañ ci teg. Ahmed Cissé kon. Ah. lan moo tax nanguloo ko artiste sam bi nga xamante ne bu mag la. non. <laughs> Euh. mu ngi mel ni tey. waaw ndaxte. Mhm. ndaxte artiste bu mag la. oui. Sénégalais noonu lañu jàppee ne artiste bu mag la lam mooy artiste bu mag Cheikh Ahmed Cissé. ok. Mhm. mooy ku yàgg ci musique marqué. Mhm. génne ay album yu toj. Mm-hmm. pour nga nekk artiste bu mag faaw nga génne sept album te ay dox. Mm-hmm. moom moo amagul album. kon mënuloo ko nangul artiste bu mag. ci loolu moom sax nangulu ko boppam nangulu ko boppam mais talent bu mag la mais pas artiste bu mag nag tamit. Mm-hmm. saf na ba noot. safut te duñ sàppali kenn du sàppali dara. ñii soom boobu nag seex bi mi ngi def mi ngi def coow de. ah Ouzin Keita génnee na fi bëri bëri ko mu def coow léegi loo wax ci boobu artiste bu mag la. <laughs> mais saf na ba noppi kenn du sàppali boobu boobu euh, mu ngi mi ngi mi ngi yëngal àdduna quoi seex bi mu mujjee artiste bu mag tamit. <laughs> sa bu defee dara sa barigo. Ah. moom ni mu lëmbee woon bu mag. seex bi yaa may yaa may yóbbu ci Ouzin Keita moom peut-être après dañ ko waxtaane mais mu mujjee laa wax quoi. yow Bamba daa Bouba Bouba Bouba Demba. <laughs> <laughs> talent la woon mais du artiste. dafa euh, déggati. d' accord mais divorce bi coow coow ci amaat euh, Ahmed Cissé ban jàngat nga ci am. Hmm? kan divorce bi Momo Dieng bi coow li ci am ay mbokkam génn di wax te naam euh, soxnaam si kenn déggul aussi ko dégg ko wax jaam la baaxul workati jigéen la. Hmm. ngir miñam go mel ni kuy naan asib luñ ne moom la moom la. ni mu nekkee moo baaxul jigéen kenn ko toroxal ba pare bëgg lu baax mënta nekk. na hmm. génn ci mekkeeralam gi mu nekk fonk jigéen jox cër jigéen. adduna mm-hmm. amul benn solo yàlla moo ko moom mais ni mu defee ak ni muy doxalee moom baaxul de. Mm-hmm. mais kàddu yi sëram wax aadama ba jàngat nga ci am. xanaa am ci gàcce rek ku sëy sa rakk. Mm-hmm. sëy ba tas nga dem ci internet di ko tudd bay tudd ay awraam. wax dëgg yàlla jigéeni Sénégal gu baax xamuñ loolu de rawatina géwél. mag ji dafa dof rek dafa amul xel. Mhm. waaye mbokki artiste sëy ba tas am na noo ca war a waxee ak nooy waxee. dëgg la mënoon a génn rek rafetal wax lu rafet. li ci mhm. suuf ñoom ñu xam ko. Mhm. waaye toog di tudd nit ki di saaga ndeyam di wax yu ñaaw yooyu ku ci ànd da ngaa bon loolu rafetul te lu rafet ba àdduna tukki. ndeysaan. billaahi wallaahi tallaahi mënut a a rafet. ci def nee na ndaw si ci boppam moom bi bi bi nga xamante ni war a def mariage am ak ki nga xamante moom mooy moom Dieng moom moo yëkkati xaalis ban jàngat aussi nga am ci loolu. est-ce que tamit comme ni nga ko waxee magam war naa. mooy ñàkk xel rek xam nga gàtt xel weesuwul génn ci mbedd mi ne suma rakk moom moo jee woykat bi. Mhm. ba muy takk jabar jigéen ja muy takk moo ko jox warugar a veut dire que kon moom moo amul dara wala liggéey. Mhm. ñu ngi naan seen bàyyi ay millions la fi bàyyi noo fi bàyyi ay millions jigéen jox la mhm. da ngaa ñàkk xaalis wala da ngaa ñàkk jom. ñoom neen xool ban la ci moom moo ñàkk. dafa ñàkk xaalis rek wala mu ñàkk jom. d'accord mais euh, mystique bi nga ci tudd. Momo Dieng dafa nduru ko ku koo xamante ni dafa euh, maanaam dafa bëgg mystique parce que dégg nañ sa benn live nga ni Momo Dieng day dem mal euh, yi demee noonu quoi ban ba yan nga ñu mën a ànd laatal ci loolu. Momo Dieng de xamoon mën nga mystique léegi nga lekk 3 millions mu am ji sëriñ la ko jox toog. ah bon. Mhm. kon Momo Dieng lépp lu mu am ci mystique la. Momo du maye di. woykatam yi sax du leen jox xaalis su bari kan la moo di may kan nga gis mu gërëm moomoo ne moo ko jox lii day jël ci jigéen jël ci góor jël ci géer ñi mm-hmm. lu mu am sëriñ la ko jox mm-hmm. d'accord léegi soxnaam ci nga xamante ne moom mooy euh, Dieyna tey boo ko doon dénk en tant que sœur lan nga koy wax parce que di sëy comme ni ko comme moom ni ko sœuram waxee jël xaalis di ko def ci góor rek ngir bëgg bëgg ko bi nga xamante ni moom nga ko bëgg a ah, tey mu demee noonu boo amoon tey lan nga koy dénk wala loo koy conseillé en tant que sa sœur lan nga koy wax moom di euh, nekkoon jabaru Momo Dieng góor ko yor den koy dimbale góor da nga koy fekk muy góorgóorlu nga dimbale ko ngir mu gën a mën mhm. waaye yor góor war benn jigéen mhm. ah, góor des koy dimbale desu ko yor mhm. li xam na ko bu baax suma doom la du réeroo ak man Hmm. dafay génne ji moom moo sa jël bagaasam am yëpp génnee ko. <laughs> appartement bi moom moo dëkk ni moom moo ko moom da koy génne day dem génne ko ci biti. ah bon décision boobu la jël. ah waaw moom moom ci jëm boppam moo ni loolu la bëgg. <clears throat> wala yow yaa am njortu que ni noonu la war a demee. ma ne la suma doom la duñu réeroo. Mhm. <laughs> duñu duñu réeroo kenn laa la su ma la waxee lii lay def ke lii lay def du maa leen ne ñëw na senegal da nga koo xamoon. waaw yaa ma ko wax léegi de moom. waaw vol bi jógee Turquie moo ko wàccee tey. Mhm. ci jàmmam. d' accord mais euh, je pense que loolu am na solo tamit euh, euh, Cheikh Ahmed Cissé je pense comme ni nga ko waxee temps moo am loolu mais. du ñàkk nañu waxtaan tey ci lu bari parce que je pense tey bu ñu defee ak yow émission ba ñu ko defaat je pense ni yàllaa xam moom moo tax bu ñu ko amee rek dañ ci lépp rek li nga xamante ni nekkoon na actualité du ñu daan dégg dan la koy laaj. mais sa diggante ak Mia gisee Cheikh Ahmed Cissé euh, lan la lan mooy sa problème ak Mia Guissé. non man awma problème ak Mia Guissé. ah bon. moo tax amoo problème ak moom. amuma benn problème ak Mia Guissé. ah Mia Guissé ñu bari jàpp nañ tey relation ak Farba Ngom ñu bari ci yow lañ ko déggee. yaa gisee de relation far Farba Ngom a ci gën a tuuti. ah. na nekk ci lim nekk rek c'est ba tas moom bañu ko am farit bañuñ ko waaye soo nekkee artiste. Mm-hmm. doon jigéen am ay doom da ngay war a bàyyi xel li ngay def ak li nga dul def surtout ci société bu mel ni Sénégal waaye Sénégal ay mbaam leen ñu ci bari. ay mm-hmm. dof leen ñu ci bari laa wax pas da ngay wax ñu daan daf ko bañ ak xaw ma lan nanga na waaw ñu bari nag ñu koy wax mais acharnement def ci moom moom je pense daf la neexul moom moo tax ngay di di wax mm, man passé naa fu ma mbindee fi yàlla dina xare su mhm. boobaa defuma ko miyaa yàlla laa ko def mhm. mais su fekkee ne ñoom lii leen def ne mooy bëgg miyaa ak mhm. kon neen ko bëgg donc dégg nañ ko moom aussi bu dégg nañ ko di musique sénégalais fayul surtout musique Mia bul di bul di jaawale nit ñi di la déglu ni ak nga mën a def show nit ñi teew loolu du benn de musique fayul senegal musicien bu amul giir doo dem su Ndour képp moo fi mën a dem sans giir mhm. lan nga bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax dafa leer otoom yeeg dundam beeg chirurgie beeg ya ca des Mia xam ne ne musique fay ko mhm. ay ponk la nekk ci gën a am di ko nàmp lu neex di ko jox xaalis ndax génn ci yim ne dafa am njaboot doon référence. Hmm. est-ce que moom lu dégg nga ko. nga ne. est-ce que moom lu tontu dégg nga ko. déedéet dégguma ko lan la ma tontu. donc moom nee na dafa amoon jëkkër amatul jëkkër am na droit dund lu ko neex am na droit nekk ak ko neex. réaction am aussi bi ko laajee ci tontu rek wala man la tontu. ah. dafa tontu rek noonu wala man la tontu. mais mais mais mais mais yaa gisee bu waxee loolu dañuy jàpp que ni ci ci yow comme ni ko nit ñi jàppee. ah non ku ne am na droit jàpp ko mais ça ne pas man la tontu neel dégg nga li mu wax mais man kay su may tontu ni ma def nii man dama ko tudd. nee na bàyyi tëdd bi na yem na suturaal boppam artiste la jigéen la da doon sëy am nay doom am na lu rafetul. Mhm. fii ñun ñëpp moom suñu awra ku ñu neex jox ko. Mhm. mais nag boo yeggee yenn position yi wala nga hmm. nekk société bi am fa benn cër dafa am lu lay war ak li la dul war hmm. lii mooy point bi mais Mia hmm. bu dee tëdd xale yi ko dàq tëddang ci dëkk bi fuuf mais dañoo tekkiwul dara moo tax duñu wax seen bos c'est tout fii laay waxee mais mais Ahmed li ngay wax ni gën a waar de man mi gëm naa ne man gën nag dafa am lu rafetul c'est ça li ngay wax ni doy waar de seex bi yaa ko bëgg yaa ma laaj lu doy waar ma tontu loolu. waaw mais niñ ci yow loolu moo la nekk. waaw mais niñ ci tontee ne euh, bu fekkee day tëdd am na jigéen ñu ko dàq tëdd aussi. waaw lu ma xam laay wax nag man bul fàtte ne ci wàllum koy ak bajo laay liggéey mooy su ma liggéey di <laughs> kon li ma lay wax xam naa ko di loolu laay liggéey man. d' accord donc suma domaine la. Mm-hmm. xam naa ne moom lu mu mën a tëdd tëdd ñu ko dàq tëdd ci dëkk bi fuuf. Mm-hmm. te liñ koy teralee duñ leen ko teralee. d' accord. wax ji ñaaw ji sénégalais jàpp ni que ni euh, moom ngay teg ci dërëm lan nga leen di tontu sénégalais yi su ma juumul yaa ngi. dañu war a xam lan mooy wax ju ñaaw suñ ko xamee pare door a xam li may wax ju ñaaw wala du wax ju ñaaw. Mm-hmm. mais pour nga leeral ñu ci aussi. non awma ci leeral ñoom ñooy leeral kay ñoom ñoo naan lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw su fekkee mu am ay far ma wax ko mooy lu ñaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. moom mi am far moo def lu ñaaw wala man mi ko wax maa wax lu ñaaw. mais moom mais moom assumé na ne jigéen la dafa euh, doon sëy divorcé kon am na droit am far am na droit nekk ko neex aussi. yow ànd nga ak moom ci loolu. non moom ci lu mu wax. ndax comprendre na ndax yow ànd nga ak moom ci lu mu wax ndax ànd nga ci. ah mais mun ma ci ànd ak moom seex bi parce que moom waxam la wax. nee na moom am na droit. ok moom moom dana am na droit respecté naa ko loolu man tam neen ma respecté li ma wax ne artiste dafa am nu mu war a bindoo même ci Amérique fii sax amuñ dina mais dafa am na ñuy bindoo. Mhm. mais artiste du kilifa bu ne xëw nga ne ko xaa. Mm-hmm. fuñ la ne kaay nga dagg business class dem. kilibam bi noo ko gisee nga ñëwaat toog. kilibam bi noo ko gisee. neex na franchement déglu naa ko mbës moo tax ma déglu ko ma déglu ko mu neex neex na I like it. gauche <laughs> waaw neex na ma man I like it honestly wéy bi neex na ma. Ah. bi ma ko dégloo déglu lyrics yi fi ko teglante rime bi. Mm-hmm. vibes yi xam nga I love it I I really like it. moom moom daanaan la quoi moom moom moom léegi kon la wala nekkagul moom artiste bu mag. am na talent. am na hmm. talent mu ngi góorgóorlu waaw nekk artiste yombul rawatina artiste bu mag. bu hmm. yombul. mais hmm. am na talent wéyam bi neex na. I like it maa ngi koy déglu. d' accord yenn critiques yi ñu ngi koy doon def ci clip bi je pense ni ñi ngi naan jumba xam bi dafa génn ci biti ak yenn yi nga xamante ni sol na ko ban njàngat nga ci am ci clip bi naam seetaan nga ko déglu nga ko. loolu soloom la artiste la noonu du ko solee këram du ko solee buy dem juma. Mm-hmm. dafay wëy artiste la la muy wëy. Mm-hmm. is kaay na seet yi dafay sol lu xaw a sexe mu jëmbal wëy bi surtout. Mm-hmm. ñun ñoo war a nekk naan te comprendre rek boobu tam awma ci problème. côté boobu moom yow d'accord nga ko <laughs> waaw côté boobu moom maa ngi cool ça va parce que artiste la quand même. xam nga wëyut sëñ Touba wala yàlla wala Baye lim wéy loolu la doxee noonu la defee. Mhm. c'est normal. d'accord je pense que loolu am na solo ak ah, ah, Cheikh bi mais du ñàkk tamit dafa am benn actualité ah, bi nga xamante ni jamono ji sénégalais yi ñu ngi ci yey di yàbbi je pense que ni tamit ñu bari koo ci laaj rek di dina ci wax li nga xamante ni moom mooy xalaatam di dossier bi nga xamante ni dégg nañ ko mën naa ni depuis bërki démb mooy Gabriel kan Euh, je pense que ni mandat dare bi nga xamante ne nii euh, def nañ ko ko ban jàngat na ci am aussi. Euh, mandat d'arrêt bi de. Mm-hmm. aw ci benn jàngat bu may fierté ci Gabriel kan ah bon. waaw. ci nan la lan moo tax ma laaj la nga ni amoo ci kii lu dul fierté ci Gabriel Kane bi nga am ci moom. ndax dama xam ne doon yaay rek moo tax ñu def ko mandat mandat d'arrêt Mhm. doon yaay képp ci mhm. réew est-ce que xam nga lan moo tax ñu def ko mandataire wala xamoo ko si xam naa ko lan leen wax ci diggante ak moom ak ki nga xamante moo nekk si jëkkëram ci wàllu doom bi ñu juróon mu àndi ko Sénégal aussi jox ko nationalité loolu lañ ci am yaakaar que ni looloo tax ñu mandataire ko waa léegi mhm. yaay juñ mandataire ci lii yaay ju baax nga wala yaay ju bon am na ñu jur sànni am na ñu jur dindi dëgg la moom dafa bëgg doomam indi ko senegal mm-hmm. tubaab bi am xaalis jox Babacar Touré Kewelo dafa tubaab bi ci Mawla moo gën la njëkk a dem. ah bon na ko lii mbiri jigéen la te kii Sénégal di yar doomam ci diine duma ci wax. Mm-hmm. mu jox Babacar Touré vingt cinq millions. Mm-hmm. Babacar Touré organisé ko presse ñuy yàq deram ngir tubaab bi mën a am droit ci doom ji parce que doom ji la mën a def jotaat Gabriel. xaalis bi tubaab bi mu ëpp alal mhm. ca lemaa gëm dëkk mhm. moo fa ëpp alal dëgg la alal dëgg la mhm. léegi nag li ma mënta comprendre mooy nan la ay ponkali góor mën a nekkee ci réew di xeex jigéen ñaareel ba ab tubaabu français ñëw bëgg a nangu doomi sénégalais ci biir senegal ñu danga ko def mandat ba di ci waxtaan di ko xas ak a xeeb man lii laa mënta nangu lan moo ko jar Mm-hmm. kan moo ko jar ak pourquoi ñuy def lii man lii laa mënta nangu. Mm-hmm. lii moom dama ko bañ. d'accord dama ko bañ. Mm-hmm. mais bi dafa naqari dafa métti te jaaduwul. ndeysaan mais seex bi avant jigéen jigéen la. kañ la doon crime. waay léegi tubaab bi bu yóbboo xale bi xam ngeen du nekk jullit. dëgg la. bu ko yóbboo du nekk halpulaar. mais buñ ko yaree ci halpulaar dina am aada. Mhm. buñ ko yaree ci lislaam dina julli mu ngi dem dara mu ngi jàngi quatre ans yi mu nekk senegal amul benn preuve bu ñu wan a wan ne tubaab bi moo dundalee lii doomam amul mhm. te tribunal France Gabriel daf ko faa gagné tribunalu Sénégal Gabriel gagné ko fa mhm. mu dajale yooyu yëpp defaat mandat d'arrêt sénégalais ànd ci ñoom Babacar Touré ak yenn sénégalais toog di live di xas Gabriel Kane ngir ne jamono ci ginnaaw. Mm-hmm. bi Adji Sarr tuumaalee Ousmane Sonko moom Gabriel dafa àndoon ak Adji Sarr ñu mere ko ngir loolu képp. d'accord mais tamit seex euh, bi daa am fi nga xamante ne nii lu waral polémique bi wala boog lu waral coow li bokk na ci po euh, maanaam li nga xamante ni posté na ko donc peut-être avant ñi xam ni diggante boobu moom ak euh, ex jëkkëram ak ak seeni doom. moom dafa génn ne carrément bu fekkee lu muy jàppale jigéen euh, moom bu jaree mu euh, mu dugg ci prison bi loolu da ciy fier da ciy am fier moom est-ce tamit euh, lu muy xamul que ni li waral affaire yi looloo tax coow li am. ah non peut-être moom. Mhm. balaa loolu xamutoon li xew exact. mais kon est-ce que génn di wax. man est-ce que jaroon na muy génn comme xamutool li nga xamante ni moom lay wax je pense ni coow lu bari mën nañoo jàpp que ni moom moom moo ko teg boppam. non dama ne. Mhm. peut-être xamutoon lii la. Mhm. xam nga information mën na ñëw ci yow. Mhm. plusieurs plainte la ñu wax. mën na am benn plainte bi. lii la. d'accord benn plusieurs plainte. waaye tubaab bi li ko ci dugal mooy doom ji mu am ak Gabriel Kane. te ñett ñeenti at yi mu ko amee fii. Mhm. xale baa ngi bilingool mu ci programme. tout mu ngay jàng. am na mhm. na ni am na bon am na lépp. lu mhm. doom war a am am na ko. te tubaab bi mu ëppale Gabriel te xaalisam nekkul fi. dëgg la. léegi nag nan la sénégalais mun a seetaanee tubaab ñëw ba Sénégal jël doom ci koo xam ne tribunalu France daf fa daf fa perte. ak Babacar Touré ban intérêt lay am ci faral tubaab ci kaw Gabriel Kane. xaalis rek moo mën lu ne mais Mollah Morgun moom. Hmm. bëgg naa àdduna xam ne bi ko tubaab bi contacté dafa bañ région yi moo tax. kon avant muy man maay Sénégal lu ma la waxut leerul. d' accord euh, kon su ma la déggee avant euh, loolu di ñëw njëkk nañ ko jox Mollah Morgun mu sete ko. waaw parce que benn xaritu Gabriel Kane bu mu xaritoo woon. mooy jiital tubaab bi di ko jox ay piste yu mu war a waxee ba sonal Gabriel. waxal ak lifer bi waxal ak nanga am na ay ñetti tiktok yoo xam ne dañ leen jàpp. Mhm. ci déformation contre Gabriel Kane. Mhm. doon wax ne wax leen ne cagala cagala nangam pour tubaab yi mën a ñëw nangu doomam ne daf koy yàq si cagatu. d'accord. lu nekk ñu waxal ko. Mhm. li coow li du tey de dafa éclaté nii rey rek. mais tout parce que am na ñu ne loolu yi yàgg na mais moom euh, comme ni ko Sénégal am ak ñenn ñi nga xamante ne nii nee nañ euh, Gabriel Kane rek jékki-jékki. maanaam kenn dootu ko dégg mu bëgg a créer génn am na sax ñu ngi naan li nga xamante ne mu ngi koy wax du dëgg pour mën a euh, maanaam duggaat wala boog nit ñi gën ko ràññee looloo tax mu mu mu def li ban jàngat aussi nga am ci loolu. waaw dañoo xamul rek. dañoo hmm. xamul ñàkk xam moom du dara. Hmm. te mbir su xewee ku ne ak sa idée am neen droit waxtaan wax seen xalaat loolu du problème. Hmm. mën nañu wax ne sax daf xaalis du problème. problème bi kay mooy. Euh, lu nekk ci kanamu tribunal. loolu luñ mën a vérifier la mais sénégalais du vérifier du laaj. Mhm. moom da ngay wax moom mu wax moom li ko neex su comprendre ne ah xaw moo ne nii la demee. Mhm. attaqué war ke la waa ji doomaraam la quoi. Mhm. nangam nangam te moom du nangoon du mus a nangu ne moom ci boppam doomaraam la. Hmm. d' accord euh, yaakaar naa loolu am na solo bu baax comme ni ma la ko waxee actualité la te yow je que ni. Euh, porteur de voix nga fi euh, nga xamante moom mooy ci réewum Sénégal na nga nekk sax ba Amérique euh, day baax aussi ñu war la laaj la li nga xamante moom mooy sa xalaat ci réew mi mais seex bi am na sa yenn soppe yi nekk fii ñi nga xamante ni ñoo la bëgg ñu ngi réclamer pour nga ñëw tabaski ci Sénégal. na leen mënta nekk man duma xar Sénégal su ma ñëwee ñu def ma ni xar benn ma dem Dumusin mbaa ñu dur ma ba ma nooy. <laughs> maa ngi jàmm mais mais soppe yooyu laaj que ni Ahmed Cissé dafa war a tabaski ci Sénégal. ñooñu duñ suma soppe da da da nga jàppoon ñu bëgg ñu la neen ma bàyyi fii ma nekk si jàmm. <laughs> mais mais mais xam nga sa réew ñoom ñu bëgg da ñëw nga ne nan la ñooñu nan la bàyyi nga nekk man de ñi ma bëgg yëpp xam nañ ne maa ngi ci jàmm. ñi ma hmm. bëggul nag ñoo léegi su ma ñëwee Sénégal luñ may jox fuñ may dalal fu may nekk suñ ma jàppee nu ñuy def neen ma bàyyi fii kay ma nekk su jàmm ñu may seetaan rek léegi maa ngi gën a leer gën a nice. waaw gën a jantal di sañse lu baax ñu bëgg ma delluwaat Sénégal d'accord kon da nga jàpp que dañu la bëgg a andi Sénégal bëgg a yéenewul jàmm. wax dëgg yàlla loolu laa gëm ku ma ko wax rek bloqué ko. ah. waaw ku wax ma ñëw Sénégal rek bloqué ko. d'accord loo <laughs> amee vraiment Sénégal bi nga nekk dañ la bëgg kon bu nga jekk dem fenn foo xamante ne nii gën nañ la gis. Ah, moo tax rek ñu am yéene que ni nga ñëw kii mais nekkul ni euh, dañ la yéeneelu kii yu demee noonu. waaw <laughs> loolu laa gëm. man ku ma yéene Sénégal actuellement nii dëkk bi ni mu naqaree. Hmm. borom alal yi am joxewuñ wuñ. Hmm. ña daan social socialatuñ. Hmm. nguur gi duñ maye duñ saraxe ñu ne jub jubal jubbanti. dëkk bi wow kongu kongu dëgër kenn xamul fu mu jëm. man yàlla indi ma Amérique gii. ma nekk ci jàmm nekk suma olala. nga ne naa bàyyi foofu noonu yëpp. ma ñëw Sénégal pour julli si quoi. Hmm. te ñooñu di la wax ne naa julli si kenn du ma si dagal bii. mais mais mais Ahmed si dafa mel ni tamit euh, euh, daa mel ne daa am loo bëgg a junj daa mel ne li nga xamante ne moom daa am lu lay xaar senegal boo gisee sawaroo ci tamit. den ma dàqee ma daw su ma toogoon den may tëj kaso ma daw luy problème. <laughs> waaw mais kon ko seex bi kon sa daw bi gars yi di wax yow da nga koy confirmé. dëgg la kay dama daw de. dañ ko xub daw man guddi laa daw daw ma sa bëccëg. Hmm. Hmm, guddi. d' accord. yàlla ji yàlla ji di taw. Ah. génn Sénégal. <laughs> xalaatoo taw ak kii bi rek ma dem Nigéria foofu dawit ma ñëw Amérique tëdd nag ci dëkk bu mag bi dëkk bu sell bi. jàpp sa njaamu. waaw lu waay wax ma dugg ci. jeex na mais mais mais Akhlé dafa am sa produit yi nga daan jaay. ànd laa buri je pense que ni yaakaar nañ ni bi nga fi nekkee lañ daa gën a dégg tur boobu mais depuis boobu ñi laaj ba xam fan la nekk ba xam euh, li nga xamante ni moom mooy euh, promo bi wala communication bi ñu bari déggatun la ci nga ciy wax lu dul bari lu dul euh, dara xew Sénégal rek nga taxaw wax ci te bu njëkk ba naam daan nga wax li xew mais du sa li nga liggéey ci ci li nga daan nekk aussi lan ngay wax ci loolu. dama gis lu góob xaalis rek ne ci xam nga man nit intérêt Mm. Mm mais seex bi Andra Boury amoon na ay coow de fii ci Sénégal kooku musaan jox moom bu ko bu ko utiliser xam li ci nekk. léegi ñëwaat na sax dina ko joxaat doole ba mu amoon. mais temps bi lan moo tax déggaatuñ ko. ah. lan moo tax déggaatuñ ko depuis bi nga nekkee bi bi nga génnee Sénégal. non parce que maa ngi dawoon man maa doon bopp bi. foog nga hmm. am ñoo wóolu dekkoo fa foog nga am noo defaree jooyante taxaw loo bëgg mu dem ci kanam des koy organiser. Hmm. loolu la rek te man du may defantu waa man su ma defee dañuy xam ne def naa su ma waxee ñu xam ne wax naa. Hmm. ñu bàyyi dana amatoo waa ñu bàyyi dana say produit nga amatoo nga amoon doxatul ma moo tax léegi Sénégal kaa bu am rek dañ ciy gis Ahmed mën na nekk de man de bu dee kaay yi mu may teral mën na ci de man aw man aw benn problème rey nit rek laa mënta def ngir xaalis drogue sax su ma gisee jaay. <laughs> d' accord euh, Cheikh Ahmed Cissé vraiment amoon naa mbégte dina daal ci actualité yi nga xamante ne ni jot nañ ko waxtaane euh, je pense que ni am na solo bu baax a baax am na. yenn leeral yi nga xamante ne nii euh, xaw na lëñbët ci xelu sénégalais yi je pense que leeral nga ko man tey dégg naa ci loo xamante ne nii euh, ci yenn actualité yu bari yoo xamante ni ni nga ma ko xamalee je pense que ni xaw ma ko woon noonu mi man ak samay morom euh, dina la wax que daal amoon naa mbégte di la dalal bu baax a baax ci lu néew lu ñu may ci sa temps ñu waxtaan ak yow Cheikh bi. maa ngi lay gërëm Abdou. Mhm. di nuyu seen patron. Mhm. di nuyu ñi lay déglu ñëpp. Mhm. yal na yàlla dal leen jàmm bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf. jërëjëf. Euh, jërë ngeen def suñu mbokk internetu Feeling Dakar bi comme ni leen ko waxoon à chaque fois ndegte la ñu koy dalal. Euh, mu nekk ni koo xamante ne nii euh, depuis maak moom sama relation ak moom moom yàgg na dara yàqu ko aussi ba comme ni mu ko waxee ñu bari ñu ngi koy woo mais peut-être euh, relation bu ma am ak moom moom moo tax mu nangul ma accepté li nga xamante ni moom mooy émission bi rawatina heure bi di ko ñaanal gudd fan ak wér lépp li xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko ci barke Seydina Mohamed di jaajëfal ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Anta moo nekkoon ci régie bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi di leen jox di daje ak keneen incha allah jaay ngeen jëf.